sama diggante ak njiitu réew mi yàlla xam na ni balaa may wax quoi que ce soit moom de moom ci boppam moom moo ma ne jox na ma ndigal pour que ma dem ci élection yi ndax li ko jiitu am na lu bëri lu ñu waxtaan te mais doo waxtaan ak kilifa di ko wax mais ci tënk moom Macky Sall moo ma ne vraiment le principe retenu par la majorité présidentielle mooy on donne le bulletin de Benno Bokk Yaakaar au candidat sortant au maire sorta mais yow mën naa la jox sax benn bulletin bu ngay demee ma ne ko man ndigal laa doon xaar rek ndax aussi booy ànd ak nit da ngeen di ànd ci dëgg man ma ko ne sama dëkk Kolda ca njëlbeen ga nag dafa mel ni suma waajur ci man pour man li ma yéene suma dëkk maa ko man rek maa ko mën kenn kenn mënu ma cee ëppale donc sama ambition pour suma dëkk ak suma région mënuma ko négocier ak dara mais loolu principe la woon parce que aussi euh, expression démocratique dafa am solo donc loolu nekk nag lu fort ci man parce que dama gëm ni aussi euh, fi ma jógee dafa métti gox bu métti la mu nekk situation yi nga xam ne ku nekk dina foog ni li may indi rek pour saafara jafe-jafe yi moom moo ko moo moo ko a mën moo ci gën a mais mais mais nekk na euh, ci lu la neex geste bu fort boo xam ne posé na ko euh, vis-à-vis de trois mais on peut lire ça sous l'angle d'une trahison contre Bibi Baldé bi nga xam ne moom moo jël maire bi ci loxo waa parti démocratique euh, sénégalais il était oui de Macky Sall dafa trahir Bibi Baldé il était maire sortant au lieu ñëw bàyyi ko mu continuer Macky Sall wax leen yéen ñëpp ngeen nekk ci wetam jàppale ko mu bàyyi la yow nga def candidature ba gagné jël loxo bi ci ci mairie alors que vous êtes du même parti. oui mais maintenant li ma lay mën wax mooy moom xam na parce que man nee naa du ma génne fii les délibérations de nos discussions avec le président de la République parce que xam man fonctionnaire laa aussi à la base ba léegi sax moom laa fonctionnaire professeur Serigne Diop bi ñu jàngal université daf ñu doon wax en droit nii bu ba mu duggee première fois palais ci jamono Senghor je pense. dafa laajte exprès toilette parce que pour moom président du nit donc parce que qu'il voulait démystifier le pour moom ko président du nit ñun ci ni ñu yaree dans le dans le respect du pouvoir hiérarchique dafa am étage yu bëri yu nekk sama diggante ak njiitu réew mi donc naturellement lu ñu munti waxante dafay nekk dans le sceau du secret ma war ko yóbbaale sama bàmmeel mais bi Bibi Baldé xam na ni président dafa waxtaan ak ñun ñu tënku ci dara te noonu lañ defee te yàlla xam na li ma lay wax ni dara du ko dindi mais li ci des wax nga